jërë ngeen jëf campagne électorale buy jeex ci fitna l'observateur nee nañu fa la ñu ubbil yéenekaay bi ay xeexoo yu dul jeex ay blessé yu bari ak i jàppante yu ne jasar ci campagne bi la ñu bi xëy di xibaar ca Pikine Est gaa yu yeewi askan wi ak gaa yu Benno Bokk Yaakaar yi ñoo fa doon jàppante ba juróomi nit jële cay gaañu-gaañu ca yëmbal sud farando yu ministre Amadou Oddi ak ñi ànd ak Bara Gaye fa waay yeewi askan wi investir ñaari fa la raay ba téene ne ay xaj sax di xeeti xaj yu ñàngate soxor yooyu ñu tudde ay pitbull l'observateur nee nañu génne nañu ko ba fa gaayi taala gajaga yi doon jàppante ak ñooñu njóogu bari yu coalition gëm sa bopp yi ñeenti nit ci ñu fare ci liste Malika bi ñu bëgg journal bi nee nañu jëlee nañ ci ay gaañu-gaañu Ousmane Sonko wax ju ji mu fi waxaloon Aliou Sall ak Lat Diop ne nee nañu moo waral ñooñu Lat Diop yi def démb ab conférence de presse ngir doon ko ca tontu la ñu waxee ne Ousmane Sonko bu bëggee boppam lu mu néew néew ab tànk bu mu ko dëgg géejawaay bëggatuñ ko faa gis persona non grata lañ ko fa def ñu ne fi ñu doon séentu Ousmane Sonko di ci ay discours yu responsable wax ak nit ñi ci programme waaye du wër di sosalaate ak di duuralaate waa kër Lat Diop yi ne Ousmane Sonko dafa war a xam ne Lat Diop ak Aliou Sall du ñu moroomam ci benn fànn du ñu taxaw di wax ak nit koo xam ne ab deram jaratul dërëm ci réew mi li mu fi defoon bërki démbo njaay mi ngi ne fi weng di tege ba léegi fukki bakkan ak juróom yu rot ci réew mi ndaxub massage am wax ju ñaaw ay sos fitna en akuk ceytaane gaañi nee nañu ci lii la Ousmane Sonko di dox guddeeg bëccëg Le Quotidien xëy moom ba bindal ñu ci xëtam mu njëkk ne waa Benno Bokk Yaakaar delloo nañu Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias kurpañ yi ñu leen kàdduy Abdou Karim ci xët mu njëkk bi muy wax ne Barthélemy Dias benn programme réclame mu di ay saaga wax ju ñaaw ak di wër di menacé waate yéenekaay bi dolli ñu ci ne farandoy Lat Diop yi sànjaafu nañu Ousmane Sonko démb ba seen xol sedd wax ko boppam tegaat ko palaasam campagne électorale bi jëm ci waajal élection yi Sud Quotidien nee nañu daanaka jeex na bu noppi candidat yi campagne nañu ko ci wasa wasa fast track lañu ko def la ca porte à porte ya di ca def googe maire ba fa newoon te bëgg faa di Moussa Sy mi ngi xam ne ci xët mu njëkku la Sénégal ne am na ñaari généraux yu nekk ci APR yoo xam ne dañoo bàyyi ba ñu toll ci digg guerre bi ñu bandone tir bi nañu waaye moom Moussa Sy ak ñi mu àndal ci benn bokk yaakaar ca Parcelles Assainies xamle nañu ne ci lu amul benn werante lu amul benn sikki sàkk daanaka dañuy gagné élection locale ca parcelle Moussa Sy moom it def fa show bu rëy sànni fa Amadou Ba ak Mbaye Ndiaye xëeru rëy ba ne Abdoulaye Diouf waxal président Macky ne Parcelles Assainies am na ay colonel ak i lieutenant yu ci mel ne Maymouna Sissoko Khouma Mamadou Mbaye ak Bassirou Ndiaye di ñoo xam ne jël nañu relève bi élection locale ñëwaguñu waaye man jàpp naa ne falu naa maire de ba pare kàddu Pape Diop la yu Walf Quotidien xëy ci ci secteur informel mairie bu ndakaaru journal Le Quotidien di dëggal xibaar bi ci page diisam ba di ñu wax ne kuréel gi ëmb liggéeykat yi ci secteur informel gi dajale ay commerçant ay femme de ménage ay dawalkati saret ak i artisan nee nañu du Pape Diop moo jug ñëw ci ñun waaye ñun ñoo jóg dem ci Pape Diop ngir jàppale ko ñu jàpp journal Les Échos ba mu dëgër wàllu football bokk na ci li mu xëye ba di ñu wax ne Sénégal Cap-Vert am ci huitième de finale yu Coupe d'Afrique Cameroun moom ba mu pare ñu àtte mu ne deux génération 2002 gi ñuy wax coow lee bari rek waaye gañuwuñu fi dara